fi gabon muy waxtaan ak nun ci waxdatul muslimina jullit ñi dañoo war a ànd nekk benn ci teewaayu cheikh mohamadul murtada mbakke muy waxtaan wi nga xam ne moom la mujj a def ak nun ci fi réewum gabon te àndoon ak cheikh mohamadul murtada alladina anamta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw nuyoo ak cant ak ndokkeel dafa siyéene sànni ay kàddu tey fii ci jataay bi niñ ko daan defee ci yeneen i jataay ñoo ngi leen di ndokkeel di leen balu àq di leen masu jataay bi yàgg na waaye yàggaay bi ku xam du doon looy réccu day doon loo xam ne danga koy fàttaliku di ci bég waaye lépp a ngi lalu ci yéene innama al amalu binniyaati yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax sëñ Tuubaa moom la tàmbalee xoqal bukaaw bi nga xam ne moo fàkk yoon wi yoon wi ci kawam la tëdd mu ubbi bunt bu ubbi woon bu yàgg xotti yoonu boppam li ñuy wax originalité ci tubaab yoonu boppam boo xam ne moom rek a mën a xettali jamono ji mu ñëwee di yoon wi gën a gàtt ci yoon wi di gën a yu gën a metti ci yoon wi di gën a tiis ci yoon yépp daan waxtaane loolu suñu boroom tabaraka wa taala nee na wa man yabtaxi gayra lislaami diinan falan yuqbala minhu yowmal qiyaam képp ku teew fa kanamu suñ boroom teew fa benn diine bu dul lislaam suñu borom du ko nangu te danga bokk ca ña perte perte moo di lan mooy li di muslu fu nit toll ndax fa nu jëm dara du fa doy te nit ki dana bala àgg dana jaar jaar jaar yoo xam ne ci lay xamee boppam ndax ku kiilu la ëllëg walla kuy am tiis nit ki koy tàmbali yége ci buy waaj a génn àdduna liñ koy faral di wax nga xam ne li mu gënoon a bëgg loolaa koy gën a soof yàlla nag dafa bëgg jaam ñi ñépp jullit ak yéefar muy bëgg gu njëkk faral nañ koy waxtaane ñaareelu bëgg gi mu bëgg ko ñi ko gëm rekk ñetteelu bëgg gi mu tànn ci biir ñi mu bëgg ay jaam yoo xam ne ci azal ba mu bindagul dara ndax xam ngeen ne yàlla moom nekkul ci jamono nekkul ci béréb lépp a teewandoo fi moom lay ñëwi bis bu saadi taxaw ak la koy jiitu tuuti ak fii nu toll ak la weesu woon ñoo teewandoo amul teeg ëllëg amul itam bërëb bu muy nekk ak bu mu nekkul suñ boroom jaam li nga xam ne yërëm na leen xam ne ñoom la bëgg bëgg gu njëkk ga ni Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mi suñ borom daf leen a won ci boppam kàttan gu leen jaral ñu jaamu ko ba daggatoo wan leen taar boo xam ne jaral na leen ñi di ko jaamu ba daggatoo wan leen ci boppam sañ-sañ boo xam ne jaral na leen ñi di ko jaamu ba daggatoo ñu gis sañ-sañ bi su borom sañ xam ne nit sañ na nit di ko jaamu bi mu juddoo ba ba mu deewee mu dugal ko safara te du ko féete fenn nit di ko moy ba mu juddoo ba bi muy dee mu dugal ko àjjana te du ko féete fenn mu wax ne yowmal xiyaam dana sëq loxoom ci jaam ñi sànni ca safara ne faaliwuma ci dara sëq ci jaam ñi sànni àjjana ne faaliwuma ci dara loolu lépp dafa fekk gannaaw moom nekkul ci jamono lay ñëwi lépp mu ngi teew teew googu loolu teew ci kanamam moo tax sabab yi am sabab yi mu sàkk ku bëgg lii defal lii ku ragal lii jaaral fii wattandiku ko bu dul woon loolu kenn du ko ñaan mu may la ndax bu fekkente ne bind na la kat yow lii nga war a am fii nga war a jaar fii ngay mujje ba noppi ci boo ko ñaanee bu la mayee leneen lu mu bindul woon day dal di nekk kon weddi ay waxam dindi la mu defoon waaye ni mu demee moo di dafa laa gis nga dund ci àdduna ba noppi wattandiku yi nga war a wattandiku yépp sabab lu yi nga war a sabab lu yépp ba àgg te dara ñëwagul mu bind ko nag misaal naa ba tey ne buñ nee gàllaaj na muy jëriñe ànd ak li ñuy wax prédestination suñu boroom noppi na wala ñaan wala sabab bu mu doon ci misaal yaa ngi ñaan lu ji guddi fan suñu boroom ca asal sa dund gii nga jóg di ñaan loo mucc te waxtu wi ngay jéggi tali bi oto bu gaaw a ngi ñëw war naa dal ci sa kaw xamoon na ne kat da nga sarxe sarax bi tax oto bi du dal ci sa kaw da nga ñaan lu ñaan lu gii tax oto bi du dal ci sa kaw da nga jëf jëf ji tax oto bi du dal ci sa kaw kon noppi woon na ba noppi loolu mooy noppi waaye nag bu fekkonte ne ñaan lu jiwoo wala sarxiwoo oto bi dana dal ci sa kaw daf koo xamoon ba noppi ci mel na film boo seetaan ba mu jeex nga dogal nag masalan problème la bu ñu yàgg a posé naan nit dafa libre lu ko soob def te mooy tax mu yeyoo ci jëfam yu baax yool mooy tax mu yeyoo ci jëfam yu bon mbugal loolu nag buñ seetee ne suñu borom nekkul ci temps nekkul ci